nga xam ne Cheikh Amadou Bamba Rasuul doon koo xam ne njariñ la njariñal adduna ak njariñul alaxira ah, julli gi mu julli woon ci Bahru Mayomba waaye tàmbale woon ko fii ci julli ci géej gi nga xam ne waj al buyuti kullaha masajida yaa naafiyan man laa yakoonu sajida nga xam ne guddi ak bëccëg suba ak ngoon ah, lépp da koy delloowaat ci suñu borom fas yéenewul faat waxtu benn yoon tey jii nag keroog ba mu jullee ci ndox mi moo waral ñu di ko fàttaliku ñëwaat fii ci géej muy jàmmalaay di ko fàttaliku muy le 20 euh, septembre 1895 nga xam ne ca la ko defee woon tey ñu toll ci 20 septembre 2019 yàlla dogal na it tey jii bés bi ñu ko tuddee maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridine waaye ci biir mbooloo mi teew na fi tey euh, Serigne Cheikh euh, maam Cheikh Ibrahima Fall moom Chérif Assane Fall Euh, Serigne Cheikh Fall Assou Ndiaye moom itam mu ngi fi teew fi moom Cheikh Modou Moussa Fall ànd ak njaboot gépp ànd ak doom yëpp ak bokki taalibe yëpp ngir dundal bés bi fàttaliku Serigne Touba fàttaliku Cheikh Amadou Bamba bés bii nag ñu di ci def ay xeetu exposition woo xam ne lépp dafa dugg ci fàttaliku Cheikh Modou Moussa Fall Kamal fàttaliku rakkam ya ku mel ni Serif Assane Fall ku mel ni Serigne Mortal Fall ku mel ni Serigne Aliou Fall. yooyu ak ñi nga xam ne ñooy njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ñu di leen ci defal exposition boo xam ne kenn ku nekk sa biographie dañ ko ci jéem a dugal di ko ci faj di ko ci fësal di ko ci wane ñu ngi fasal fasal képp koo xam ne ab taalibe nga doomi julit nga murit nga saadex nga Baay Faal nga sunu borom defal la tawfeex defal la ndam réew mépp sunu borom defal leen jàmm ndax Serigne Touba njariñ la loo xam ne anut ak lor Serigne Touba mooy njëriñul adduna Serigne Touba mooy njëriñul alaxira